lundi tres décembre 2021 dañ ñëw ak ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi tey xëtamu njëkk la xëy gën caa fes na ci combat bi nga xam ne nii moo doxoon ci Siteu ak Papa Sow ba tey mu mel ni ki nag combat ba coow la mu ngay continuer ndax nag yëglikaay bi daal dikk na ci li nga xam ne nii moom la CNG jël bër ki dem ci àjjuma àjjuma ji comme ay ndogal maanaam ne Papa Sow aj nañ ko 6 mois yoo xam ne day ànd ak sursis ñu ne déet ne waay Siteu ñu ne moom maanaam dagg nañu ci moom 500000 ka nga xam ne moom lañ moo dóori ko fukki ak juróom yoo xam ne du dugg ci làmb ji ba ca des tamit jili sek ñu jox ko ay weer yoo xam ne dafa ànd ak sirsi yemuñu ca ñu ne itam nag maanaam mbër ya seen relikaaya moom jotaguñ ca leneen loo xam ne tamit amaa na ca mbir ma mooy mbër ya kon vint 29 janvier daal dañuy dikkaat ca arène ba bëre la nga xam ne moo di combat ba mbir moo ma nag ba mu amee daa mel ni kii nag ka nga coow li bëri na lool ci dëkk bi ñii neen lii ña ca des na lëlee moo tax nag bira seen ma nga xam ne nii daal moom moo di maanaam njiital CNC bi daal nee na kenn mënta bañ maanaam combat bi nga xam ne dañ ko reprogrammé at maanaam dañ ko fas yéene tëggaat ñoom ñaar ñu bëree ko yemu ci tey itam nee na boo bëggee dégg-dégg maanaam mbir moom nga xam ne moom la ñu jël comme ay ndogal maanaam danañ fexe ba ku ci nekk daal ci parti yi ko seet maanaam nga gis sa sa bopp maanaam kenn bàncee perte mel ni ki daal soo bëggee dégg dëgg moom mbir moom fi mu nekk nii moo dafa waxu moo aay te mooy njàmbat li fi mu nekk nii ñépp ñu nga cay wax yemuñu ca waa CNG tamit am na loo xam ne dootuñ ko nangu maanaam maanaam bu bëggee dégg dëgg daal tolérance zéro lañ koy tudde maanaam mbirum làmb combat yu mag a mag yi moom bu ama amatee bu bëggee dégg dëgg duñu may kenn lan ku nekk la moom lañ lay jox loo moomul duñ la ko jox yemuñu ca ñoom waa CNG am na loo xam ni daal wax nañ ko maanaam boo bëggee dégg daal fi mu nekk dégg dégg daal maanaam fi mu nekk ni moom mbir ya dañ koo fas yéenee xoolaat bu baaxa a baax a baax jamono jooju nag Siteu moom génn na wax ca micro Leewtoo la mu xamle daal na li am ba des daal nee na moom ñaar fukki million ak juróom ya nga xam ne moo nekk ca CNG te ñu teg ci loxo nee na nañu ko ko jox buñ bañee nag lambaay ñaaw ndax Siteu nee na buñ ko ko joxulee day nee na kon Pape Abdou Fall ak lu mën a xew Siteu nee na ko dinaa daagu ba sa biir kër te bu ma fa ñëwee di ma jox samay ñaar fukki million ak juróom ndax nag loolu daa am loo xam ne moom laa ci digaale woon te nag digga bor la te ñàkk def la nga digga woon ay wor la te si tane na fasut yéenee mukk la mu digaale woon ak Fodé rawatina ab famem mu bañ koo def ndax nag Fodé nekkoon ku ko jege nekkoon kenn ci moom génn àddina ci l'accident ci at yi nu génn si tane na reliquat boobu këram laa ko jëfa fas yéene dafaral ndax nag loolu maa ko waxoon te man duma wax mukk di dellu ginnaaw ca samay wax maanaam duma ma war sama ay wax loolu si tam moo xëy wax ko fa nga xam ne moo di ca micro Leewtoo sunu làmb jot li nu ko leneen loo xam ne démb amoon ca arène nationale ba mu mel ni kii nag ñàkk jariñu daal bu bëggee dégg dëgg diggante ma kéwél dem bëre ba yàgg na lool xeex nañu xeex ba tar ardo am na ca waaye fu ñu mujje mooy ñàkk daal moo mujjee daan kéwél jàll ci kawam loolu yëglikaay bi moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne ni amoon na di combat tamit ci samedi ji sëñ Modou ñaa tëggoon ko concorde daal soo bëggee dégg dëgg daa mel ni ki daal maanaam Balla Lour diisut ci moom luurul dara dara ci moom ndax nag da koo daan ba jàll dem aw yoonam keneen koo xam ne tamit ca Iba Mar mu ngi fa doon bëree démb nga xam ne moo di bébé Saloum numéro 2 ak Sibel ba nekk ca Fass Ndakaaru waaye combat bay daal soo bëggee dégg dëgg bébé Saloum bu numéro 2 wa moom daal moo jaar ci kaw ka nga xam ne moo di Sibel daan ko jàll yëgle kaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag lambi simple ji tamit jamono jooju yëngu na ndax fa nga xam ne moo di ca Fissel daal boo bëggee dégg-dégg Yankoba saar bu ñoojoor daal moom daa mel ni lañ fa tegoon moo ko jël yóbbu ko leneen loo xam ne nii amoon na mu di ab galaa ca Foundiougne ka ko jël tamit daal maanam yëglikaay bi nañ daal ñoxor fay moom moo di vainqueuru lamb ja yëglikaay bi di sunu lamb moo xëy tey ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu buñ fa jógee record la ñuy dem record moom ñëw na wax nu loo xam ne nii daal maanaam ak ñàkk déggoo wala ñàkk bokk gis-gis ñooñu mooy waa CNC ndax nag ndogal la ñuy jël dañ naan lii tey suba ñu ne la ca des mel ni ki nag ci xalima ak Assane Waalo Gaye daal toppal nañu loolu ba dikkal ñu ci kon li am solo ba am solo daal mooy ay nit buñ dee liggéey dañuy teg liggéey bi ci siraatal mustaqim la ñuy def ñu di ca waxtaan te itam nag jéem koo teg ci dëgg ndax lu la waay mën di wax lu coow bari bari bari lu bur bi bari bari te dëgg amul maanaam ay naxaate kese lay mujje kon muy seen seebaak keneen ku mu manti doon nag ñépp a ci yem mbir mu mu doon des koy waxtaane xool la ca gën ñu def ko waaye fi mu nekk nii coow li bari na kon CNG il est l'heure yéen tamit ngeen xoolaat seen bopp ndogal ya ngeen di jël ci seen ay réunion ak seen ay décision ndax nag nit ki du yaa ko jiite rek ba tax loola neex nga ne loolu laa war a doxal déedéet àddina tëdd noonu njiit yàllaa ko sàkk ndax loo gis muy dem buñ bëggee bu avancé day am ku ko jiite waaye njiit la na fexe ba teg ay mbiram ci saatal mu mustaqim su ko defee la mu yor dina avancé te bu avancé ñépp nañ ko jariñoo salaamualeykum suñu mbokk internet di leen nuyu di leen jaajëfal di leen dalal jàmm fii ci seen euh, plateau JDA namoon naa leen lool te it euh, xam naa ne namoon ngeen ñu bu baax a baax euh, mi ngi noonu tey euh, nag plateau bi ma ci ànd ak kooku nga xamante ne mooy Babacar sama journaliste bu mag bi ah kenn dootu ko présenté Babacar ma bàyyi la nga nuyu suñu mbokk internet yi. waaw maa ngi lay ziar Ramatoulaye encore une fois di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow di namoon naa la comme ni nga ko waxee. Mhm. et puis itam namoon nañ nga xam ne dañuy topp ci GDA bi di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si ñoom. Ah, di ñaan Sénégalais leen fi yàlla def jàmm def ko si àddina bi yëpp mm-hmm. di la bëggee bu baax a baax a baax di la remercier encore une fois mm-hmm. mais bon comme xam naa da nga baax rek moo tax ngay wax loolu mais Babacar boo xam ne ba tey mu ngi toll si phase di jéem rek damay jéem quoi da ngaa modeste nag Babacar da ngaa ah, modeste waaw dama jàpp damay jéem ah parce que bon man loolu euh, loolu laa gëm daal pour man ba tey maa ngi ci yoonu di jàng rek macha allah mais naka naka sa lundi tey waa sant alhamdulilah parce que mbir moom boo yeewoo si jàmm rek mm-hmm. xam nga Mm-hmm. mën a jóg dem santal sa borom parce que loolu amul prix mën a su ko jënd quoi parce que am na koo xam ne xëy na yeewu mm-hmm. ah yàlla téye yaramam maa ngi ñaanal ñu ñu wér di ñu yàlla leen yàlla yëkkati am na koo xam ne xëy na nekk ci xat-xat yaa ngi dégg mhm. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne doomu aadama yaa ngi koy jànkonteel yàlla na ko yàlla teggi yow nag soo yeewoo yàlla may la nga mën a dem ah doxi say activité mm. defe naa ne war nga gën a sant yàlla donte bu la jafe-jafe dalee itam santal sa borom waaye tamit bon kon alhamdulilahi rabil alamin la ñuy wax alhamdulilah rabil alamin comme ni nga ko waxee mi ngi noonu amaat contentement bu baax a baax retrouver leen mm-hmm. su ko defee ñu daal di seetaan loolu nga xamante ne mooy euh, yëglekaay yi dikkaat ci plateau bi <clears throat> mi ngi noonu euh, seetaan nañ loolu nga xamante ne mooy yëglekaay yi Babacar. ñu daal di dooree ak euh, suñu journaux bi di suñu làmb. Mm-hmm. Euh, Bira Sène sur la reprogrammation cité Papa Sow. Mm-hmm. personne n'a le droit de refuser daa mel ni kenn ci ñoom ci ñaari mbër yi amuñu droit rejeter loolu nga xamante ne mooy combat bi ñu bëgg a reprogrammer. waaw maanaam kenn mënu koo bañ. Mm. ci li mu wax par rapport ak sanction yi génn ak yi am yëpp ak ndogal mi jëlaat pour ñu bëree ko bon. Mm, euh, moom mi ko wax nag moom moo jiite làmb ji moom lañ ko dénk mu yore ko di ko doxal. Mm. xëy na su ko waxee am na fu mu ko teg. te li ma jàpp mooy xanaa ci ay taxes la ko war a teg. yaa loo xam ne da koy def nii rek. parce que encore une fois li jar a rappelé mooy Sénégal ñaar ñaari mbër yi moom ñëw nañu pour remplir seen contrat. Mm-hmm. parce que le fait que ñu am combat. combat bi yàgg yàgg ñu toog di xaar toog di xaar ba yàlla dogal bis bu ñu ko waree bëri ñoom ñaar ku nekk ngemb ànd ak say mbokk ñëw ci làmb ji mm. stade bi mbër yu ndaw yi bëri ba combat yi jeex ba dara sulul ñaari mbër yi war a bëri grand combat bi accident am ci combat bi ci benn mbër bi ba tax bëriwul ñu Papa Sow mm. loolu mooy lu metti mm. kon defe naa ñaari mbër yi ñoom pare woon nañ pour bëre waaye nag xëy na yàlla moo dogal loolu mais bon li am solo mooy bu fekkente ne kenn amul droit de physique maanaam bañ na du ñu bëre doo bëree waat ak sa morom ci date boobu ñu jàpp ah, Euh, la nga xam ne tamit moom la leen yoon may ñoom mbëri na seen see fexe ba seen àq mu bañ caa fell dara ndax nit ku nekk itam du yaa jiite rek ba tax na comme ni ma ko waxee léegi loolu neex ngay dogal non non non mm. ñoom am nañ ay droit ñoom mbëri am nañ ay àq. Mm. yaa ngi dégg te defe naa ne gënuma ko xam. Mm. waa CNG bi yore làmb ji. gënuma ko xam seen ay kilifa seen ay ménager yaa ngi dégg muy Cheikh Ndiaye Mor Papa Sow muy père Max Mbargane mooy rek nga xam moom moo di Siteu kon li may waxaat encore une fois nañu fexe ba mbër yi mhm. seen ay àq seen ay yelleef bu ñu ci fell dara mm. bu fekkente ne dañuy bëriwaat man ne moom duñu bëriwaat de mm. yaa ngi dégg parce que Siteu ak Papa Sow ñëpp bëgg nañoo gis ñu bëriwaat mbir mi leer waaye li am solo mooy nañu fexe ba bu ñuy bëriwaat seen ay àq ak seen ay yelleef bu ñu ci fell dara encore une fois mm. Mm. ba ci des tamit ñu masawat les amateurs yi nga xam ne daggoon nañ seen ay béy ci bés boobu mm. ngir fas yéenee seetaan parce que ma naan lamb bu amee ku ca perte a cent pour cent mm-hmm. c' est des amateurs ñoom ñoo ca perte a cent pour cent mm-hmm. parce que ñoom lañ doon xaar muy seen Papa gisuñu ko mm-hmm. te fay nañ seen ay billets ñu jënd nañ seen ay cote kon encore une fois seen seen ñëpp ñi nga xam ne bés boobu am nañ ci àq waxuma sax mbëri yi ak amateurs yi mm. mbëri yi mbëri yi kese mais dama ne mbëri maag amateurs yaag supporters yaag promoteur ba ku ci ne mm. la nga ca moom ca bés ba ci ay àq bu dee dañuy tëggaat combat bi mm. na fexe ba nga gis ci sa bopp loolu moom waa voilà loolu laa siy wax ci côté boobu mi ngi noonu Babacar euh, na solo am na mm-hmm. solo ginnaaw làmb jooju bu mu amee euh, diggante papaso Sow ak euh, kooku nga xamante ne mooy Siteu mm-hmm. le CNG lance l'opération zéro tolérance waaw loolu day dama naan bu ñu defee dañ dañ kaa bu ne def nañ ka dañ kaa yéex a def mm. xëy na nag bis bu ne dafa am lu mu lay jàngal xëy na c'est Papa Sow am na lu ñu si jàngate mm. ba tax ñu bëgg a taxawee noonu mm. parce que tamit làmb il fallait que ñu xam que ni ñi nga xam ne nii parce que biir arène nationale ah, comme lu may wax sa jour arène national ci enceinte dafa tuuti ci làmb maanaam ci lii fi mbër yi war a tuuse fi ñu war a doxantoo fi ñu war a def seen affaire ak géew bi yooyu boo ko xoolee boo ko comparé ak stade Demba Diop dafay tuuti pelouse bi day ndaw mais tribune arène nationale moo ëpp ay place tribune Demba Diop yaa ngi dégg mm. kon nag defe naa seen sa ba ñu ñëwee gis loolu waroon nañu teel a jël seen ay matukaay ci yenn événement yu mag a mag yi mm. ba yu mel nii du fa am mm. te am na ci combat boo xam ne sax muy ñàkk jariñu ak euh, Alioune Seye bi ñuy bëre xëy na nekkuloon événement bu toll ni Siteu ak Papa Sow ci dayo waaye gis nga combat ba dafa mujj a toj ci lan ci xeex kon encore une fois nañu fexe ba mbër yi bu ñuy bëri seeti surtout grand événement yu mag yi. Mm. ñu veillé ñoom au niveau waa CNC. parce que li am kera sanctionné nañu mbër yi sanctionné keneen keneen ak keneen. Mm. mais ñoom ñi yor comité d' bi lu ñu leen teg. Mm. parce que pour man ñoom am nañ faay ci mbir mi am nii kera ci Siteu ak Papa parce que tëggat ya muy jili sak ak Baye Demba bu waa CNC taxawoon fermement ne leen ku ci ne fa sa mbër lànge ko jeexaat jeexaat ku c'est ça ah Babacar sanction yi sanction euh, am na solo torop torop parce que loolu aussi day tax ba ñooñu nga xamante ne ñooy euh, amateurs yi les supporters bu ñuy ñëw dañuy ñëw ak xel bu daal. waaw bien sûr. ah bien sûr. Mhm. Ah, mhm. mi ngi noonu. Mhm. Euh, su ko defee ñu daal di jàll ci kook nga xamante ne mooy Siteu Siteu averti Pape Abdou Fall je viendrai chercher mon argent chez toi. c'est-à-dire que dina jëm këram dina ñëw këram. Euh, jël si loolu nga xamante ne mooy kopparam. waaw parce que bon boo xoolee sa takkere la génn ci euh, micro Leewtoo. Mm. ñu nuyu suñu jigéen Ndeye Mbacke vraiment vidéo bi di vidéo bu am solo. Mm. Sénégalais bi doon ko xaar yàlla dogal moom keroog mu seq ak moom waxtaan bari ki démb bi sanction yi pare Siteu wax euh, lii nag. Mm. lim ci wax. te muy lu daw sa yaram mooy li mu ne moom 25 million yooyu nga xam ne moom lañ ko téel te mu koy laaj. Mm-hmm. xaritam bu ñuy wax Fodé foo gisaan Siteu gis ko fa moom Siteu jaral ko lu ne mu accidenté mu accidenté bu yàggul décédé fii nga xam ne moo di ci euh, fora mhm. moom la jàpp ne kooku mu doon àndal dafa diggaale woon ak moom defaral ko seen kër yaa ngi dégg te naan xaalis boobu la ko façon yéenee defare mhm. te lu mu diggaale woon la ak moom mhm. ndax bi combat bi taxaw Fodé mu ngi fi mu ngi dund mais Siteu bi mu demee États-Unis di préparé wu ci ginnaaw am la Fodé génn àddina mu ne kon CNG nag ñoom ñooy xool. comme li ma wax sànq rek. nit ki. injustice daal baaxul. xaw ma néew ma nag kii da koy def wala kee koy def. mais kuréel li nga moom nañ la ko jox. te encore une fois jiite na fexe ba say mbir tege ca woon parce que bu loolu amee Pape Abdou Fall ak Siteu mën nañoo bañ a seq dara parce que li tax mooy. Euh, Pape Abdou Fall buy tëgg combat avance CNG la koy yóbbu bàyyi ko fa CNG ñoo boobu xaalis mm-hmm. reliquat fa la koy bàyyi. ménage dem naa tey bu ñu ma joxulee sama xaalis. Mm. damay dem kër Pa Abdou Fall jëli sama xaalis. Mm. ça veut dire que kon est-ce que ñi jiite seen rôle. Mm. est-ce que ni mu war a demee lay demee. kon mbir yi encore une nañ ko xool. parce que tey loolu ñun duñ ko souhaité c'est bu jóg dem kër Pape Abdou Fall nan di jëlee xaalisam. non on ne bëgguñu ko. parce que la muy jur man nañ mën na indi leneen ak leneen. te lii yëpp li koy indi man wax naa ko waxati ko mooy. Mm-hmm. ku ne gis nga nit àddina li ci gën doy waar ramatulaay. wala euh, waa rama mooy nit ki moom am àqam ak yelleefam nga xañ ko ko. man d'accord ma ku mu mën a doon parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mhm. ku nekk am nga sa cër. Mhm. waaye ku ne la nga moom nañ la ko jox. Mhm. ku juum itam nañ la jubbanti teg ci aw yoon parce que kenn mënta mag yoonu réew mi c'est impossible muy man ak yow ak keneen ak si yow ak ñi seetaan. képp koo xam da nga wàcc yoon dañ la war a delloo si ci ordre yi nga xam ne lii mooy yoon. pour en ëllëg nga bañ a Babacar nekkalu fi promoteur bi. Mhm. Pape Abdou Fall nekkalu ma fi Seta nekkalu ma fi ma fi CNG. man sénégalais yi laa fi nekkal. on est là pour le Sénégal. yaa ngi dégg te ñooñu man lim noonu ay sénégalais lañu. Bira Sène la dëkk. Mhm. jiite CRC bu Kaolack liggéey fa rafet ay at ba tax ñu xalaat ne tey bu ñu ko joxee CNG dina ko doxal. Mhm. ñu ngi koy ñaanal yàlla mu réussir ko. kañ ko toftal sama xarit la Maysa Ndiaye. ki topp ci Bira mi jiite CNG. nekk yore wàllum lutte avec frappe bi sama xarit la Maysa waaye ne mooy li ma xalaat ne ku ko dégg di nga xam ne li wax ju méngoo ak li war a am la mais du wax ngir jote kenn ay fleur xalaat moo moo ëpp solo Babacar nit ki daal lépp looy wax euh, na basé wu ci dëggu mhm. te te mu leer la ne lii mooy euh, lu normal mhm. ba nga xamante ne bu ñu xasee ba atte du du du gaañ kenn bien sûr am na solo mhm. mi ngi noonu journée Khadim Samb ñaax domt kéwél ñaq waa ñaq <laughs> ñaq ñaq jëriñu waa démb la woon suñu père ah, Xaarim Samb ñu koy seer di ko ñaanal jàmm démb tëggoon làmb ju neex vraiment di wax ne moom tamit encore une fois ñu ngi koy ñaanal jàmm yàlla na gudd fante wér parce que père Xaarim Samb damay wax ne genre mag ñu mel ni moom dañ ko soxla Sénégal ndax bu àddoo dina am njëriñ mm. te itam mag la boo xam ne comme li may wax ne dama bëgg ku bëgg Sénégal te moom daa bëgg Sénégal mm. dafa bëgg culture Sénégal ba gis nga jëriñoo ne euh, wala boog euh, njàndem production la tudde structure am dégg mu tëggoon ñàkk jariñu ak euh, ki nga xam ne moom moo di euh, kéwél combat ba am ñu bëre bëre bu metti xeex ba ardo ñàkk dem na ardo dikkaat ñu bëre mais mm. ñàkk moo mujj yóbbu ndam li ndax la la am ca combat ba nag mooy mm. ki nga xam ne ni moom moo di kéwél daa dem ba combat bi neex ci moom mu def lu mu war def ci biir bëre bi mu yëkkatee droit tam te xam naa ne ñàkk ah, ak ak lu mën a xew rek day ñëw mm. moo tax ba ñàkk dellusiwaat parce que jëkk naa ñëw mu tere ko ba mu dikkaate fa mu ko fa yeggee nag mënatu caa mucc mu daan ko jëlee bu leer kon félicitation à ñaq euh, di courage a bëre. macha ah, a bëre. yow si bëre. Uh-huh. buy bëre seeg yow day wër si bëre. macha allah jéem koo duma wóorul. dëgg la mm. parce que non parce que mbër muy bëre si la. day bëre si bu ngeen di lewtoo. Mm. yow mën nga ko gën euh, kéwél moo dàq xeex gis nañ ko démb feeñ na ci. Mm. parce que euh, à tout moment bu combat bi gën a dem maa gis loxo góosu góosu kewel saa bu jógee day dal ci cible bi mu soxla. dëgg la mais ñàkk mënul ku mënul euh, tere loolu. Mm. waaye moom cherché li muy cherché mooy song bu baax njëkk na jëli tànkam kewel génne ko. Mm. kewel nag combat biñ miitaay dellu si nag xam naa ne affaire bi neex na mu def une deux te droite waruloon jóg. Mm. droitam parce que saa bu jógee waaw ouverture lay doon ci ñaq pour song bi li mu am bu ñëwaat mu soxla li mu soxla mu am ko moo tax bi mu dellusiwaatee mu yegg ko foo xam ne mënut ci génn mu daan ko jël bu leer. Ah. voilà mi ngi noonu en tout cas euh, à lui et puis euh, euh, à, à son adversaire mhm. lii mooy làmb c'est voilà mm -hmm. les les lois mm -hmm. deuxième journée Mouniang Production c'est mm -hmm. ça mhm. non oui bien sûr Mouniang Production <laughs> mhm. Concorde renverse Balla Lourd Concorde Balla Lourd sëñ Modou ñaa xam nga moom tamit samedi la tëggoon dañ koy féliciter suñ papa la mm. kuy kuy liggéey la te noppi moom boo melul di Babacar moom la muy def du ca boole wax ju bëri te toujours vraiment mu ngi tëgg ay journée te bu tëggee stade bi day rasé ba maar bëri ki dem dafa rasé muy mm. Concorde ak Balla Lour mm. di féliciter ki nga xam ne moom mooy Concorde di encourager Balla Lour Balla Lour joxoon nañ ko sens parce que loolu sens la woon pour mu bëree mm. ah, grand combat yàlla dogal na ah Concorde daan na ko loolu nag mooy làmb waaw day dem liggéeyaate Faye Production. Mhm. hier. Mhm. Bébé Saloum 2 euh, défigure Sibel en vingt secondes. waaw loolu itam démb la amoon ca Iba Mar Diop. stade gaaw na de. waaw parce que lamb kay des fois sax mu jeex ci moins de vingt secondes. waaw ça parce que adversaire am na combat gu fi am bu yàggul diggante Sall Bawol ak xal euh, caatu yara. Mhm. est que mat na vingt secondes. macha allah voilà parce que loolu li koy waral mooy adversaire bi moom. day bu fekkente ne moom mu ngi ci biir combat i xam na li muy def. ah day bu ngeen ne bu arbitre boo defee benn moindre faille rek. moo exploité ko te am na fam bu ñu la fa yeggee mën naa balaa mat 15 secondes sax nga tëdd. loolu la ñuy naan bëre daan ñu bi daal bien sûr kon di ah, ñu ngi félicité bébé Saloum numéro 2. Euh, di encouragé Sibel. ah macha allah mhm. mi ngi noonu lutte euh, combat Papa Sow c'est euh, incohérence dans les dans le sanctions. incohérence soo ko déggee ci tubaab mooy defe naa ñàkk bokk. ay mm, déggoo. Mm. ci Samson bi ñu génne. Mm, mm, defe naa day dikkaat di wax delluwaat si li mu waxoon rek. Mm. maanaam lu lépp su amee ba tey journaliste seetlu ko ba bind ko. ça veut ko que kon. yaa c'est encore une fois nañu xoolaat toogaay bi. surtout nañu xoolaat toogaay bi. yaa ngi dégg. Mm-hmm. bëgg a sanctionné bu mu la tax a précipité. bul yàkkamti. jëlal sa temps nga xool li ngay def. ak li la texte yi may. parce que ay texte moo tënk CNC. dëgg nekkuñu fa ñoom ñoo xam dañ leen fa teg rek. ñuy def nii lu leen neex encore une ay texte moo fa ne yaakaar naa ne kon defe naa nag lu ñuy def rek bu ñu ko sukkandikoo ci texte yi mhm. ah mhm. te texte yooyu information bi jàll si ñëpp mhm. defe naa bu keroogee jafe-jafe mën na bañ a am kon defe naa bu ñu amee incohérence rek ci seen biir ba journaliste di ko xam di ko bind rek ah donc y'a problème te loolu temps man euh, daal talul suma xel daal. mi ngi noonu ah te te te te c' est donc euh, incohérence bu xasee ba am. Mm, si bu jugee si ñoom. day xaw a compliqué ci ñi si mm, des. day wàcc day dagaala day wàcc exactement. Mm-hmm. Euh, Babacar ma bàyyi la nga tàggatoo ak suñu mbokku internet. di ñaan la jàmm di balu ñëpp àq di balu tam internet yi rawatina ñi may bàyyi xel chaque weekend parce que xëy na ñu ngi doon xaar Babacar ci làmb yi gisuñu ma. Mm. encore une fois di leen xamal ne rek loolu du si Babacar. mais maa ngi leen di jéglu bu baax a baax a baax a baax parce que su ma sañoon làmb bu am rek defal leen reportage a a mm-hmm. loolu lu ma metti la mm-hmm. barke alxuraan maa ngi leen koy mm-hmm. jéglu bu baax a baax le fait que weekend bi joxuma leen ay combat rek te làmb amoon rek ça veut dire que deful li ko war kon nag maa leen di jéglu mais pour ngeen xam que ne rek Euh, du mhm. Babacar. non parfois euh, yooyu du am. day day du ñàkk c'est la vie c'est la vie parfois du ñàkk. yàlla parfois nga bëgg def dara am ay. Euh, circonstances yu la si empêché Babacar mi ngi noonu ah tey daal loolu lañ indiloon loolu lañ leen indiloon ak sama waaju baax ji mhm. Babacar su ko defee ñu jox leen rendez-vous demain incha allah même heure